def si jigéen ba jigéen xam boppam xam ay valeur am moo tax su femme dévouée ñëwee fekk ci fondement bi mu fondement woon ba mu jëm kaw mu teg ko ci pour ñu fexe ba taxawu njaboot gi fondement bi day gën a continuer pour xam bu ci nu lislaam waaye bàjjan ba tey ñuy laaj rek femme dévouée boobu nga wax li ko tax a jóg lu tax sëñ bi tudd ko wax nga ko waaye lan mooy taxawaayu femme dévouée waaw taxawaayu femme dévouée nag mooy comme ni ñu ko waxee bu njëkk bi taxawu njaboot gi. Mm-hmm. waaye itam boo seetloo boobaak léegi bi ñu tàmbalee léegi euh, surtout ci wàllu soxna yi lépp lu ci wàllu formation ci wàllu financement ñu leen koy defal pour mën leen taxaw ndax comme ni nga ko waxee rek jigéen taxawaayam ci société euh, rôle am daf ci important mm-hmm. daf ci bëri yoo xam ni mm-hmm. moom moo ko war a taxawee mm-hmm. ndax mooy yaay mooy soxna donc moo war a taxawu société bi dañu naan la femme est le baromètre de la société ou reflète l'image d'une société donc boo seetloo euh, ci début beeg léegi peut-être ci soxna yi leen tàmbalee moo jigéen ñu dem ci euh, nempante yi ak école bi ñu ubbi naam neen mën naa ni sax dañu def erreur parce que au début dañ ne pour jigéen ñi rek la bi ko góor gi yéegee mu ne euh, waru leen ko def pour jigéen ñi rek ah, ndax yéen a war a yar ñëpp yéen a war a yar yëpp kon xam naa déwén sax incha allah dinañ ko ubbil gën ko yaatal nga xam ni ñëpp dinañ si mën a bénéficier ndax boo seetloo même foofu bëri na ñu ñëw sax di ñu wax naan ñu li ngeen si fayeeku dafa ndaw par rapport école li ñu proposé man leen ñun li ñu euh, tax a jóg mooy euh, yar l'élite de demain mm-hmm. te ki tax ñuy def moo ñu jaral loolu mhm. donc moo tax euh, seetu ñun si luñ ci am wala lu mel ndax mën nañu sax amuñu si dara mhm. ndax loolu ñu jóg mhm. l'essentiel mooy ñu fexe former l'élite de demain nga xam ne bu ëllëgee bu njaboot googu génnee taxaw ñu ne ah ñii de ay njabootu Serigne Moustapha lañ loolu moo ñu tax a jóg boo xoolee itam ñi ngi def euh, formation yeeg en gestion d' entreprise ak yu mel noonu. Mm-hmm. di ko may soxna yi ngeen xam ni pour mën leen gën a taxawu gën leen jàppale également pour ñu mën a génn sax euh, gën a dugg si lu formel. ndax nga xam ni ah, xam nga comme li ko imam waxee même booy defar si pour diine doo bàyyi société te dañu gis ni de plus en plus ñu ngi dem société bi dafa gën a laaj yu formel parce que de plus en plus da ngay dem ñu lay laaj ay kayit ak yenn yi te soxna yi yenn saay mm-hmm. yu mel noonu duñ ko xam wala duñ ko am donc yooyu yëpp dañ leen si bëgg a taxawu nga xam ni ñoom it bu ñuy jóg dañuy yor seen ay structure yoo xam ni dañu bëgg ba bu femme dévouée jógatee sax di liggéey ñoom ñëpp ñu mën a àndandoog ñun dem ndax souvent moom la ñuy wax ñu bëri dañuy laaj nan la ñuy duggee wala nan lañ mën a bokkee ñu ne ñëpp ay femmes dévouées lañ ñëpp ay femmes dévouées leen parce que il suffit pas rek nga ni dama bokk ci biir euh, groupement bi mooy tax ma mën a liggéey déedéet ku nekk fa nga ne femme dévouée nga fa ndax ku nekk fa nga ne dangay dimbali sa mbokk dimbali sa euh, mbokk pas-pas dimbali sa mbokk deret ak sa dëkkandoo loolu rek rôle femme dévouée la hmm. donc moo tax ñu bëri bu ñuy laaj nan la ñuy bokkee mën leen bokk ngeen ba pare ah. bokk nañ ba pare ah. ndax góor gi moom moo njëkk indi loolu ca euh, année de la femme hmm. donc ñun loolu rek la ñuy wëyal ah. te ñun suñu role mooy c'est-à-dire que daayira bi bëri na ay entité yoo xam ne ay jigéen lañ hmm. mais ñun dañu bëgg entité yëpp di bokkandoo di àndandoo di liggéey ndax dañu bëgg ñëpp di indi résultat di indil góor gi résultat parce que jàpp nañ ni Euh, ndam buñ ci am rek ndamam la moom. ndax mhm. moom moo ñu tax a def. Mhm. moo ñu tax a jóg. Mhm. donc objectif yi loolu la woon fexe ba njaboot gi ku ci ne di mën di demal sa bopp mën a avancer sa bopp nga xam ni bu ëllëg